Euh, beneen bi mooy activisme en général euh, ni koy defee ak li la si mën a fekk yépp euh, premier des choses mooy seetaan naa vidéo kilifa bi amul lenn loo xam ne nii man li ma bind mooy en globalité que ne que moom euh, dañ ko jàpp en flagrant délit que que que il est fautif amul lu ma si dindi li nga xam ne aussi mu leer mooy bi may def post li ma njëkk a bind nag dama waa ji ñuy wax Thierno waa jooju dafa def délit mooy dafa filme kilifa à son insu loolu c'est un délit c'est-à-dire. kenn amul droit filmer nit te waxuloo ko ko wala nga enregistrer nit te waxuloo ko ko booy def booy def benn entretien boo xam ne c'est privé entre vous bala ngaa def dara da ngay wax ne ah man de lii de di waxtaan dama ko bëgg a enregistrer pour mu nekk preuve bu valable boo mën a teg ci table ji boo leen demee justice sinon boo ko defee frauduleusement loolu justice sénégalaise du ko jël comme preuve bu baax.

enregistré nit te xamu ko buñ jegee loolu mooy liñ dégg si waxtaan bi moom ak kilifa kilifa ne moom affaire u jaay oto la je veux bien nañ jàpp ne comme li kilifa wax ne affaire u jaay oto la loolu moo am amul leneen xaalis bi ñu ko jox pour oto la léegi vidéo bi am na ay vingt cinq minutes ci vingt cinq minutes yooyu bi waji wax wax auto dafa wax auto par rapport ak pa bi ko lol bon woon auto 11 millions bu ko jënd auto 9 millions 500 lol la dégg si oto beneen bi nenañ amna lu dañ ko monté parce que amna lu ñuy wax keut moy bo ci la na vidéo bi day dem ba ci jagg rek mu tëb après amna benen vidéo bo wa leral genn wa leral man lima xam ci ñom ak limay xalaat ci ñom bind na ko du ben du ñaar média bo xam ni la dañuy manipuler dañuy def loo xam ne nii si affaire Sonko ci affaire mooy waa ji ñu duggoon këram dóor ko donc si lu bëree bëree bëree bëree bëree bëri il est prouvé que waa leeral dañuy jéng bu ñu joxee information yi mais ñoom la donc ñoom génnoon nañ benn vidéo boo xam ne nii vidéo bi kilifa la muy wax yeneen loo xam ne c'est personnel et je pense que les sénégalais yi ni ñu ci comporté woo ak vidéo bobu gissou sax ko partager wala ko si wax parce que lolu c'est personnel intéressé wul kenn nit ki limuy dund moy lima waxone waxoon si affaire Abdoul Mbaye mom ak affaire jabaram ak yooyu wala même Sonko affaire bu nekké mom massage moko neex wala leneen ak leen loolu noonu c'est un truc privé soxaluñu nit ku nekk am nga sa jardin privé am nga loy def lo xam ne c'est privé loolu lekkoo xaalisu jàmbur lekkoo xaalisu dëkk bi defaloo infraction loolu noonu c'est entre yow ak ñi ko seqal loolu nit ñi ñun duñ ci wax te sénégalais sax boo xoolee waxuñu ci loolu ça veut dire que am nañ responsabilité maintenant li nga xam ne nii lañu wax mooy il est clair que moom nee na da doon faciliter pour que xaritam boobu mu am visa waaw li mo bind ne amul mission amul compétence liggéeyul ci ambassade amul lenn loo xam ne tey moom mën na ko permettre mu démarcher wala mu dimbale wala mu nekk intermédiaire pour dimbale mu am visa parce que am na ñëw parce que li Mora Morgan wax moom c'est am na parce que Mora Morgan si ñoom la nekkoon am na ñu ñëw ne artistes yépp noonu lañ mel dañuy jaay visa wala mës nañ dugg ci visa amul compétence boobu. bu nekkee ne mën na dimbali mu am visa lan moo ko may bu nekkee am nit ordinaire boo demee da ngay jaar fi ñëpp di jaar donc moom bu ko amee c'est parce que influence peut-être bu mu am la notorité boo xam ne nii xam nañ ko peut-être li mu am célèbre mu nekk artiste boo xam ne nii kër gi la nekk ak yooyu yooyu yanaa maaral nekk leneen ak leneen mooy permettre que nit ñi xam ko walla que euh, autorités yi nekk.

bu nekkee am nga critères yi wax pour may la visa dinañ la may visa autrement man de amul kenn kenn kenn ku musa wax ne Maas met na ko en rapport ak kenn wala Maas def ko nekkoon li wal li amul loolu amul donc c'est pas tous les artistes parce que am lo xam boko boko boko boko euh boo tamit doxé amna noy nooy comporté woo euh, tey man bëgguma xaritoo ak consul France bëgguma xaritoo ak consulu Espagne bëgguma xaritoo ak consul Belgique xam nga la moo tax parce que boo nekkee ne pan panafricain am yu bëri yoo xam ne da nga koy xeex da nga koy wax da nga si da nga si activé wu pour pour dénoncer ko mais mu mun loo neex ambassade France mun loo neex ambassade Belgique mun loo neex ambassade Espagne ñooñu si Union européenne la te man jël naa position yu bëri yoo xam ne nii suñu frères yi dee ci géej gi wala ñuy dee si désert bi wala ñu dee en euh, Libye ak France ak yooyu noonu Union européenne ñooñu ko teg te ñooñu ambassade euh, Espagne la ambassade tel ak tel la moo moo tax ay way yi nga xam ne nii bon nañ toog fii ak ay ay ay yoo xam ne nii bon liggéey teg tekki fii def yooyu noonu jël peut-être financement boo xam ne nii pour inciter les gens à rester moi je ñoom ni ñu amee liberté ñëw euh, Sénégal Afrique saa yoo leen neexee loolu lañ amee liberté ñun bu ñu mën a dem ñu dem ñoom nag bu nekkee ne yoon boobu dañ ñu ko naqarlil fu ñu mën a jaar mën a pour dem c'est ça que je dis c'est c'est une liberté parce que nit ñi jeunes yi ñu ngi dund fii dund bu métti boo xam ne nii ku si nekk kenn jëlul gaal pour dee defuñu ko pour xaru dañ jël garab dañ dañ si bëgg a génn donc man dama nekk artiste boo xam ne dama naan leen non non non bu leen jël parce que damay dem liggéey ak OIM wala mu liggéey keneen wala mu liggéey keneen xam nga pour wax la ne non non non non je ne le fais pas même même jëluma xaalis boobu noonu parce que principe la ñoom bu ñu amee droit ñëw ñu war nañ am droit ñu dem te loolu c'est même actif am na bateau espagnol boo xam ne il était impliqué fii nii ci ay rey nit ay bateau sénégalais boo xam ne c'est des centaines de sénégalais ñoo si deewoon bateau euh, espagnol yoo xam ne bateau militaire la donc ñooñu mais boo toogee boo boo boo boo boo Sénégal bu demoon Espagne armée sénégalaise ñu impliqué wu ci mooru espagnol duñ fa jóge donc pourquoi ñoom ñu ñëw fii Union européenne dañuy def la ñuy wax déplacement des frontières mooy tey dañuy ñëw ci dëkk bi fexe ba. yow waa dëkk bi ngay dem sa ay sa ay doom xam nga di leen di leen indiwaat musuñ te nit ku nekk individuellement lañ la war a juger pour xam sa cas mais ñun suñu gouvernement dañuy signé nañ leen indi en groupe signé ay jox leen xaalis pour que ñu téye wala ñu signé ay ak waa milice yi nekk Libi ñuy suuxal booy yi donc ñooñu booy kaas loolu mënoo nekk mënoo nekk xarit ak ñoom soo nekkee xarit ak ñoom ah, mën na nag. nga am de bon rapport mën nañ bañ mën tay mën nga défar muy ñom sen film wala sen son xam nga gaay jox leen trophée lolu y' a y' a aucun problème ngeen daje ci relation bo xamné sen relation boo xamné peut-être que euh cocktail la wala la ngeen waxtaan et tout mais boo leen demee ba am relation de facilitation moy am loo xam bu bu ko France waré taxaw wala waré def do ko wax parce que boo xaritoo ak ñom ba am relation bo xamni relation de de de de de de qui le privilégié la mais lool non on sait tout ce que tubaab bi so waxé leneen lo xamni ne nii ñoom neexoo leen saa am si ñom luñ doon bëgg donc tu peux pas garder une relation bo xamni relation de qui le que ne que non amna non bu su man damay euh consul bi est-ce que danaa dem si consul bi di ko jaay non non non. doo ko jaay mais relation bi ngay am ba mën a wax ak consul bi ba bañ may la visa loolu moom ngay dem nga wax keneen ne ko dossier baa ngi nii ak léegi-léegi lii après léeg léegi lii xam nga mais doo ñëw wax consul bi ko xaalis la jaay ma non non non mais nag nit ñi aussi bu lañ jàpp nit ñi ay dof bu la neexee nag nga daal di euh, défendre mais bu nekkee ne. da génne contrat wala nga génne yow papier oto bi dëgg la mais papier ça ne prouve rien du tout boo génnoon papier bu ñu bind Cerno xaw ma nu mu sant acte de vente moom mu signé ko avance bi mu jël mu ñu def ko si nga joxaat ko xaar parce que loolu loolu mooy kuy liggéey da koy liggéey si ay papier donc li ngay wax ni mais nit boo neexee mu gëm ko. comme mën bu ko neexam bañ ko gëm mën naa la sax nangul ne gëm naa li ngay wax mais le fait d'être intermédiaire ça dañ koy combattre ñun parce que affaire intermédiaire yooyu noonu facilitateur yi moom moo yàq Sénégal su lu bëree bëree bëri dem leen impôt wala nga dem feneen ak feneen ak feneen saa yooyu dem fenn

ñu Dakar fii nii li am fii Dakar muy affaire location yi mais am na nit ñoo xam ne nii c'est fait chaque fois booy booy def location da nga war a fay trois mois trois mois yi benn mois bi kan moo ko moom courtier bi la mooy ki nekk entre kii loué ak ki bëgg a moom mooy dem xam ay numéro yow boo ñëwee da nga koy fay la valeur de la location bu nekkee si xarit mën na la wàññil mais loolu lañ bëggul c'est-à-dire dañ bëgg si nekk ci dëkk boo xam ne nii nit bu waree lekk si dara na nekk liggéeyam na nekk loo xam ne daf ko liggéey mu am compétence boobu na nekk na nekk euh, loo xam ne yow c'est pas que da nga am sa influence c'est pas parce que da nga am facilité xamante ak ministère yi xamante ak yooyu moo tax que mën nga leen woo xam nga facilité pour peut-être après bu la neexee loolu nga nga monee ko. Men, do yon yon el, ok, fi viza, ren yon do khaz, daman ki vit, apre yon gwa dam, wou, wou, konsil bi, apre yon do khalis, non. Gadega, nyon lese mwen, ki bin nin, wak a wak ou tè, fè ma gyo yon non. Giske, man ragolouman, dara, jen ti pa jalou. Voyaj nan foun, nek. Eee... Euh, am naa indépendance boo xam ne nii loo nekk sama gaayen gaayen gaayen bu li ñu war a wax privé mooy li ma la wax nii mooy affaire u euh, ja nit ak jabaram ak nit ak gelam ak nit ak kenn loolu c'est privé loolu noonu ak lu ma xamal nit munu du ma ko wax du ma ko wax mukk mukk mukk ci ci ci public mais loo xam ne nii ça concerne parce que y a des yoo xam ne dañuy dund ay at liggéey at xam nga jox ko nit pour mu may ko euh, pour mu faciliter ko mu am visa wala yenn ñenn ñuy lekk seen xaalis ñenn ñu du buñu fenn bon nag damay toog di xaar justice mais justice nan lay autosaisir wu ci affaire boo xam ne c'est entre entre yéen le gars bu moom bu nekkee ne euh, daf la bëggoon a suuxal effectivement mën na am la bëgg suuxal mën na am peut-être nga sax yónni xam nga mais yow yaa war a porter plainte pour que mu mu leer yow yaay porter parce parce que dañ la dañ la dañ la diffamer dañ mettre dans la place publique sa image donc y a une infraction ab am na loo xam ne nii dañ la ko teg comme tort yow yaa ko mën a leeral leeral ko la justice n'a pas intervenu sur quoi que ce soit beneen bi mooy euh, avant may wax waxi TFM ak la moo tax waxuma si yenn problème yi mooy gis nga. ñu ngi nekk artiste wala nga nekk loo mën di doon influence di nga am ay nit du lay jege ñoo xam ne nii boo tegee seen relation ci table ji nga bëgg xam relation boobu lan moo tax xaritoo boobu lan moo tax des fois di nga xam ne xel xaritoo bi amul benn benn benn charte bu dëgg bu mu tegu mooy di nga nekk artiste boo xam ne dafay am influence nga gis nit koo xam ne nii mu ngi def leneen lu lëndëm di feneen xaalis ñëw bëgg a jege yow xam nga lan la bëgg mooy sa influence boobu bu ne ah maas de non damay seeti maas kii xam nga maas laay waxal xam nga mu invité tel maas président wala wala a ànd ak man kenn xamul la mais foto nga ak maas foto nga ak président foto nga keneen jël foto boobu noonu yóbbu ko xam nga. après ma soo bëggee oto danga may woo xam nga mu env ma ma ma ma àll oto xam nga chaque jour nga may aar may dem xam nga nga man ma jàppale ne sama copain nga da nga ma bëgg ndax juste parce que non dem sama kër xam nga sama jabar peut nga xëy may xaalis wala sama yaay nga xëy may xaalis ku ñëw sama kër sama jabar nga may ko cent mille wala nga euh, sama mbokk nga may ko dinaa laaj pour lan la pour lan la parce que am na leen loo xam ne ni ci affaire li ñuy def mooy engagement ak activisme ñëpp ko xam. ñëpp ko xam ci ay normes yoo xam ne nii il faut nga dox si am na relation am mënoo ko am ak ministre mënoo ko am ak DG mënoo ko am ñeneen ñoo xam ne nii yéen yow li ngay li ngay xëcc ak ñoom lañuy xëcc bokkul ngeen bëgg a nekk ay xarit di jaxasoo mënul nekk c'est pas possible damaa am ngénte non non boo amee ngénte yaa am indil xar xam nga non soxlawuma loolu musuñu ma def album génn naa sama album 2014 mairie waxoon nañ ma ñëw indi fa indi moom mairie soxlawuma subvention soxlawuma jël sama CD yóbbu ko foofu ñu koy euh, maire da ko jënd wala ministre du ko jënd soxlawuma ko ku ko bëgg a jënd 3000 francs ndax déglu ko ñëwal nga jënd ko sans 3000 francs mais du ma ko def groupe di ñëw di la ko jaay wala organiser ay dara manifestation wala lu mu mën doon xam nga pour que nga yow nga nga jox ma subvention musuma ko def pourquoi parce que je veux garder ma liberté je veux garder ma liberté amul kenn ko xam ne mën na wax né Mass jox naa ko xaalis xam nga dans le cadre d'un de son concert wala dans le cadre de son album wala dans le cadre de quoi que ce soit je fais man ce que j'ai à faire ko xamné nak artiste la wala leneen nga bu nekkee ne da la soxal nga jël ko té bu nekkee ne réalité bu am Sénégal mooy rappeurs yi ak ak ak musiciens yi dañuy xol né est-ce que yow li ngay dund man la musique dama koy def passion la mais sama liggéey mom suis un peu plus de foofu ma lumay dundé ak indépendant mais bu nek da yow musicien la do dem studio mu nga un ay pas deux mois do dem studio de son defaloo dara mais américain yi bu ñu musique mais ils ngi tout le temps studio di xol nu ñuy sen musique di def musique mais munoon ne yow musicien mais musique boobu noonu.

di nga maye loo xam ne waroo ko maye nit dina la woo defaloo loo xam ne waroo loo ko defloo parce que sa business bi ngay def da bëgg a teg si relationnel non non non il faut que nga am compétence boo xam ne à toi individuellement mën nga liggéey pour loolu man euh, dama jàng am ñoo xam ne tey ñi ma bokkaloon classe yu nekk institut ak ñu ñu ma bokkaloon université man ñi nga xam ne xam naa leen ñu nekk man physique. ñëpp ay cadre lañ ku ci nekkul cadre yaa ngi ingénieur wala yaa ngi nekk à l'extérieur wala yaa ngi liggéey si ay si ay euh, multinational te ñooñu billaahi wala taala yi koo si wax ne maas danañ xam ne ñu si bëri doon ñu moon sax gis bu ñuy jàng mais ku nekk mooy def sa option nga ne man lii laa tànn def li ma daan def muy image audiovisuelle Sénégal maa njëkk a bind programme vidéo animation numérique pour l'école SUP Info Africatique jangal bac plus jangal bac plus 3 moy licence tey la bo mo di dem suma amul ku ma amna ko xamné ni ma jangal ne ki la jangal parce que lool non en fait compétence boo xam na wa am sama bac jàng na dem université lenen li luma bëgg la mais dama koy ci am na relation yoo xam ne nii am naa ko ak ay DG yoo xam ne ñi ngi si gouvernement bi ñoo xam ne seq nañ ma dem fa ne leen kat maa am sama boîte damay def léegi-léegi lii xam nga jox ma marché amul kenn ku la mës wax ne la maa dem na si moom ne ko jox ma tel marché wala jox ma tel marché te am na ci ñoo xam ne nii rapport yooyu am nañ ñoom ay relation maa leen ëpp relation ak ñooñu am na si ñoo ay DG lañ maa ngi seen CV sama sama boîte mail que temps bi ñuy galère am na ñoo xam ne dafa naa leen entretien euh, famille wu Marème Faye Sall nekkoon nañ Jurbel yàlla def na daanaka ñoo bokkoon mun naa ne koñ Marème Faye Sall man bu ma xamul xam naa ko avant que muy ñëw euh, muy nekk première dame xam naa famille yëpp am na rak bu tudd El Hadj Malick Seck man ma tudd El Hadj Malick Seck boobu yaayam moom. da doon wax ne ñun ay seex lañ da doon ñëw suñu kër man may dem këram temps yi nekk xale dem naa këram du benn yoon du ñaari yoon benn yoon lañ daje ñu ngi daje RTS ñoom bu ñu nekkee pouvoir damaa wàcc escalier muy romb dafa tourné mu nuyu mu ma nuyu ko mu tax dama ko tàllal loxo tàllal loxo waxuñu sax te bu ñu daje woon feneen tamit souvenir boobu la ñuy waxtaanee wala rapport boobu la ñuy amuñu beneen rapport parce que gëj naa gisuma ko lu ma wax si moom lu may wax publique su ma nekkoon ak moom privé position yooyu laay wax en privé bëri na ñoo xam ne nii mooy ñoom Adama Faye ak mu ñeneen ñeneen nag bu ñu xamante suñu ay grand xamante nañ nii nii nii nii nii te bëri nañ mais amul si kenn koo xam ne nii maa ngi ak société boo xam ne damay liggéey si audiovisuel jéem naa ut dara pour dem pour ut fa liggéey amul liggéey naa 2 liggéey naa TFM. amul kenn ku mu tey mën a wax ne maa mës na ma laaj dara pour clip wala dara pour lii wala amul ku ma dimbalewul parce que dama man sama clip mosuma ko yóbbu 2S mosuma ko yóbbu TFM ku ko am yaa ko teel a sa bopp ñu nekk régie kenn mosula woon la maa mës na ma woo ne ma tegal ma sama clip amul parce que lan parce que je veux ma liberté de ton dama bëgg sama liberté boo xam ne man li ma war a wax dama koy wax gis nga donc. Gadiaga bu ñëw naan maay waxal ci affaire euh, scandale TFM beeg vol de fréquence bi euh, vol de courant beeg ay visa naa la wax dara TFM man musuma dem Bercy TFM musuma yóbbu à l'extérieur booy laaj TFM nga jéggi fa sax laaj 2STV ni ma jàppee euh, ab gardien noon laa jàppee président directeur général yooñu aw ma complexe nit damay respecter parce que damay respecter cër bi nit ki am mais sa ñu séxé lo xam ne liggéey la je suis intransigeant ci sama liggéey ñun ñëpp xam nañ ko TFM man relation bu ma séx ak ñom damay bind bind administrativement bind amul lenn lu may def si euh, ñu def lii wala ñu def lële non non non donc problème bi nga xam ne nii problème val de fréquence la te bind naa ko gaje yéen am ngeen rapport ak ñooñu xam nga leen xam nga nu ñu tudd am na si koo xam ne téye nañ ko placé ko en garde à bàyyi ko daal di koy defal euh, contrôle judiciaire donc bu nekkee ne ñeme nga li ngay wax kooku ñu identifié ko mu nekk Ndiaga moom ngay moom ngay wax mais man su ma nekkee TFM euh, su ma waxoon jëmale ci TFM est que dina am sens du am sens parce que TFM lay liggéey. su ma su su ma su ma waxee sa xalaat TFM sax mu ne sax mu nduroon mu ndurul leneen mais su man su ma amul argument boo xam ne damay defendre ah défendre sama boîte awma ko du ma wax damay bàyyi noonu donc loolu noonu c'est affaire boo xam ne ñi nga xam ne moom lañ impliqué wu gis ngeen ko boo leen ko ñemee wax leen ko visa wu dañuy jaayee visa Bercy man mosuma dem Bercy. musuma am euh, pa euh, kii visa bu ma TFM utal musul am ku ma woo sax ma en ah, Bercy bi dama bëgg nga defal ma en rapport ak kii nii dama naan da ngay wootee foofu noonu ci ci ci ci jox la numéro fixe bi du ma la booleeg nit mukk naan la non demal ma boole laa non non ça je ne le fais pas je ne fais pas d' intermédiation je ne fais pas d' intermédiation parce que damaa bëgg sama liberté.

dañ siy wax dañ siy wax kenn mënul tee ñu bañ ci wax dañ siy wax euh, gis nga euh, beneen bi mooy affaire activisme effectivement ku ci dugg wala ngay wax contre gouvernement wala nga wax leneen mais loolu mais mën nañ la piéger xam nga gëm naa ne waaj bi muy ñëw dafa am intention nuire la teg na fi kii film na am am na naa moo ko def ndax dafa seq yow xaalis boo xam ne peut-être joxoo ko ko wala daf ko def parce que dañ ko yónni loolu lépp mën na si am et loolu duma ko duma ko duma ko duma ko duma ko euh, duma ko xalab mën naa am comprendre nga mais nag li nga xam ne nii mooy da ngay ñeme def dëgg da ngay ñeme def dëgg bu nekkee ne aussi li nga mën a wax ñeneen bu ñu waxee loo xam ne ça te concerne waroo jàpp nit ki nga ne ko dafa soxor walla nit ki amul euh, daf la bañ xam nga walla non c'est un espace public on de choses publiques li ñu war a wax maas loo xam ne nii def na ko mais man am naa ay problèmes yoo xam ne nii peut-être seex naa ko nit. mais dama dem police dama koy lijjanti bu jëree fay je dama fay je bu non ma je parce que dama gëm ne dëkk dafa am loi qui koy lijjanti léegi ñun li ñuy di wax bo ne gis nañ xam dañ ko xam impliqué wu ci lo Je ne mais dañuy am le courage d'en parler d'en parler mu deuguer ñu échangé mais nous savons que ça n'a rien à voir suñu relation personnelle mais bu vous avez suñu relation personnelle non dañu wax ak yow rek après nga bëgg non non non euh, non mais kon gouvernement même chose da parce que ñoom xaaj ñoo ñoo donc da non on a le droit d'en parler moi j'ai le droit d'en parler et je vais en parler muy ñëpp ñi nga dafa l'espace public, public dafa concerner le hip hop il concerner leneen ak relationnel bi nit ñi di def utiliser image wala utiliser groupe pour dem indi visa ak pour dem mettre intermédiation wala pour dem mettre à loolu lañ bëggul buñ ko ko qui que ce soit ko qui que ce soit on va en parler. munul amul non non ragaluma rusuma li ma war a wax laay wax kum neex nag mun nga génn aussi yow nga def sa vidéo wala nga def sa post si masse wala nga commenter lu la neex mais li nga xam ne moom laa xalaat moom laay wax les problèmes yi ñu bëgg a tëqale ne non lii nii dañ ko piégé ndax comme nañu piégé Sonko nu nañu piégé keneen ak keneen c'est pas la même chose c'est des affaires yoo xam nii ay affaire de affaire de

mais si lay impliqué si benn affaire bo xamna ni war nañ ci wax dinañ ci wax képp koo xam ne nag man newuma ne yaanaama parce que yaanaama nekk fa newuma kër gi parce que kër gi nekk fa newuma keneen parce que keneen nekk fa newuma M2D parce que mu nekk non kilifa la woon ak keneen ñoom ñaar seen version mooy liñ toog déglu ko loolu nag am nañ droit ñu wax si fi may daanalee mooy dañ ne gis naa sànq ko wax mooy Eh, FDCU FDCU le fonds yi génn Yagoul. man FDCU en 2019, je pense non 2020, du corona de euh, jot financement FDCU Bon, xamné ni level studio sama boîte la ñu def pour des formations, moy lima liggéey man formation en audiovisuel ça mom lay liggéey mooy sama compétence moom lay bind ay programme di ko jox ay école yoo xam ne bac plus lañ ñooñu formation laa def lay defal au niveau de Djoubel au niveau de Djoubel maa ngi ko am studio bu ñuy waxee double B studio maa ngi ko jël depuis 2006 ba tey jii 2006 ba tey ça fait 17 ans je pense 17 ans yoo xam ne man maay fay ndox maay fay courant maay maay fay location kër googu avant que FDCU di am amna euh, matériel de sonorisation amna studio d'enregistrement boo xam ne boo fa demee ñi fay répété ak yoy non kenn fayul dara amul lu nit di fay man mako jël tam sama musuma mosuma si am xaalis bu may duggal sama poche té formation boobu ñono def affaire du Covid motax mais dama koy def parce que lolu moy sama liggéey premier et j'ai toujours mon discours a toujours clair a été toujours clair sur le fond fond yi xaalisu sénégalais yi la. Macky Sall moom ko kenn moom ko képp kuy liggéey nga am structure war nga meuna a déposer boo defé programme de façon très transparente nga jot sa khalis nga dérouler programme nga mais bokay dérouler aussi na ko dérouler si par rapport ak yow li nga wax c'est-à-dire na na dugg fi mu war a dugg boo nekkee formation la wala bu nekkee structuration li nga xamni mo mo moom moo bon mooy nga jël khalis bi compétence formation structuration ak wala yow sa bop nga am structure bind une structure ut créer créer structure ak fi man je suis quelqu'un de libre gis nga bi corona bi duggé ma ki bi man ma wo kenn sama xarit ku nek fofu mané ko dama bëgg jël ma jox ma parce que Je damay def euh, man. Je sama sëriñ doomu géré bam jeex billahi wala la jotuma financement amul ku si si man man fay jeex ba ma principe yi nga xamné ni Je suis def ci film Je li may sama message li may def la nañ problèmes wolof problème problème euh, corruption joueur ak loo xam ne nii la moom laay wax feneen ñaari accompagnant laa am ma leen di remercier mooy dolli ma ak par Express koo xam ne ni ku si nekk ñaata nga joxe un million nga joxe te un million boobu quatre cent mille huit cent mille yi ku si nekk sa quatre cent mille TFM kii 2S moo ko jël parce que 40 pour cent lañ am man ma am 60 pour cent xam man ragaluma loolu daa cest dire que doomu géej ba mu jeex liñ am mu dugg un million deux cent la. 1 million deux cent te lu ñu dépensé si doomu gaynde mais ëpp na vingt cinq millions mais par principe je me suis dit que film bi may def dinaa ko rentabiliser par principe one ex bet ñaar yoon contact nañ ma pour dougal publicité ma bañ parce que dama jàpp ne ñii seetaan sama ñii seetaan sama film ay xalé lañ du fa jaar xam nga di leen jaay loo xam ne mooy vous pouvez jouer en ligne du ma ko def moo tax def ma ko. produit boo xam affaire aphrodisiaque naturel defuma ko parce que ay xale mënoo après nga leen di wax naa ne aphrodisiaque aphrodisiaque mooy non boo essayé pour am kàttan jëluma xaalis bob ak ñaari sëriñ yoo xam ne man da dama gëm ne comme médecine waruñu ko publicité waruñu publicité sur ay sëriñ donc comme loolu loi la te loi bob sax am na ñoom ko mais je respecte la législation de mon pays moi je jël ma donc cinq ñoo hamne trois sëriñ Wanexbet ak Viagra jëluma leen te mënoon naa ko jël mu def sama xaalis après nit ñi non parce que am na loo xam c'est par rapport à des principes si lay dox donc man sama liberté duma ko sàmm kenn duma ko may kenn saa yu ma amee lu ma war a wax si nit de façon publique duma wax mokk nag nit kii kii gelam la qui est na fii am far fi xam nga noonu noonu kii leg léegi lii seen waa kër xam nga dafa xuloo ki dafa non parce que yoy non vraiment c'est des affaires privées amul deuk bi njëriñ mais lo xam am deuk bi njëriñ moy intermédiation yi nañ ko baye ci location kër yi nit ñi son nañ nit ñoo xamni amuñu ben compétence nek ci immobilier foo bëgg a luyee ñu laaj la xaliss nañ ko baye ci bureau yi bo démé impôt bo démé service des mines boo demee feneen fenn passe bureau passeport da ngay jël nit xam nga mu lijjantil la xam nga nga nga fay xaliss lo xamni ne ni ça devait être un service gratuit même chose aussi pour le visa artistes yi bu ñuy dem nañu jël ñu war dem ñu dem artistes yi bu ñu jël na ñom parce que xam nañ ay euh conseil wala xam nañ ay ki mën nañu dimbalé xam nga même bu nekkat boo leen joxee xaalis du ñu wax na non lool non pour jënd visa du jënd visa mais dana la koy jox parce que influence bien ñu am ko paye. parce que de ñun Sénégal bi ñuy aspirer mooy Sénégal bu changer de valeur Sénégal bu changer de valeur te nag loolu nag bu def ça va pas être facile ça va pas être facile moo tax bon l'un si góobee dinañ ko gar tu vois amuñu ben xarma yàlla nag ak rapport quiconque liñ yéene suñu bopp lañ yéene ñëpp Wassalam.